rek loo xam ne mooy euh, ñeel euh, wàllum euh, directeur de la direct elle la directrice de la santé fii si Sénégal moom lañ loon am tey par rapport ak situation point du jour bi nga xam ne ñeel na feebar bi di coronavirus ñu gis ne instant yi professeur chiffre yi mu ngi dem ba tey di wéy di yokk li mu dese yi aussi gis ne ne aussi yokk na fii si Sénégal ñu gis ne le président de la République jël na décision assouplir mesures yi nga xam ne jëloon na ko ngir xeex feebar noo gisee rek euh, stratégie yi nga xam ne Macky Sall ak it gouvernement ngam jël nañ ko ngir xeex feebar bi di coronavirus. Euh, jërëjëf euh, soxna Diapp ñu ngi lay ziar bu baax di am mbégte ci laaj bi donc par rapport à la stratégie sur un plan global sooy xool démarche Sénégal. depuis l'arrivée du corona au Sénégal jusqu'à présent, c'est comme si Sénégal a stratégie. On est en train de copier des stratégies qui ont peut-être fonctionné autre part, bi nga xam ne peut-être euh, qui qui sont yu normal par rapport à des environnements wala à des réalités socio-économiques ou même politiques d'autres pays on a essayé de le mettre chez nous et et marche pas donc je dis que déjà temps de réaction bu président am sax déjà euh, temps bu grave la ndax dafa mel ni yàlla daf ñu daf ñu musal ci feebar bi depuis le début ñu feebar bu mu fi doog a si fii en mars donc le Sénégal n'a pris aucune mesure pour tere feebar bi mu ñëw Sénégal donc euh, feebar bi feeñ na depuis décembre en Chine depuis janvier déclaré nañ ko mu nekk épidémie bu normale en Chine février lëmbe na àdduna bi nekk na pandémie mm-hmm. boobu ba léegi feebar bi dugloon Sénégal c' était l' occasion pour le Sénégal déjà mu bloqué euh, dëkk beeg ñëw bi wala boo su ko mënul bloqué sax mu mën koo saytu euh, à l' comme à la sorti le chef de l' état ne l'a mm-hmm. donc depuis le début kon ñun nous sommes si benn on on est dans ce tâtonnement bi xam nga l'état c'est à à renseigner di joxe ay nombre de cas chaque mm. jour euh, di créer une psychose ak une peur chez population san euh, sans jël une mesure sérieuse bu leer bi nga xam ne mooy tax euh, faire mën a dem ndax da ngay am yenn dëkk yi nga xam ne ils ont opté pour une stratégie peut-être peut-être de de de dépistage on va dépister les gens wala ñii ils ont opté des gars yi kat ñëpp sol masque depuis le début pour bañ affaire bi diffuser ñii ils ont opté pour pour nettoyer désinfecter et cetera le Sénégal n'a eu aucune stratégie à ay mbir yi nga xam ne daal dafa mel ni comme xiifa fi am wala wala guerre moo am si dëkk bi mhm. donc euh, man je me retrouve pas dans la stratégie du chef de l'État mhm. et récemment avec les nouvelles règles yu mu jël ça montre carrément que c'est un genre damay wax ni abandon rek la euh, daf ko ëpp loxo mënu si dara. xamul nu mu koy saafaree et donc euh, c' est c' est désolant nag. si mhm. euh, nouvelle règle yooyu nga xam ne président de la république jël na ko ngir oyofal dundu doomu aadama yi par rapport ak Covid 19 bi. Mhm. ñu bëri dañoo jàpp ne président de la république dafa subir lii di pression sociale ak pression religieuse mhm. est ce que partagé nga avis boobu par rapport à pression religieuse parce que gis neen aussi mu ubbi jàkk yi ban jàkkat nga am si ubbitee fa yi ak lépp rek loo xam ne événement yi accompagné na ko. pour ma part man gëw ma ne le chef de l'État a subi une une pression euh, des religieux parce que depuis 2012 euh, bu président Macky Sall nekk Sénégal il a toujours montré que euh, amul kilifa ci biir Sénégal sa à dire que musuñu koo wax dara wala wala njiit yi ñaan ko dara ba mu def ko on l'a vu avec des emprisonnements qui ont eu lieu au Sénégal on a vu avec des problèmes électoraux qui ont eu Sénégal ñu bëri wax nañu yëkkati seen téléphone woote Euh, il est resté euh, froid sur sa position donc Macky euh, mun naa wax ne faalewul waa biir réew mi peut-être su amoon pression mu war a mën a am pression bitim réew laa gën a yaakaar ni si la Macky gën a sensible que pression biir réew mi concernant l'ouverture de mosquées man je le place dans une lecture un peu je vais dire politique et et même de dans une dans une période de crise il faut il ne faut pas oublier que obligé maanaam la coercition maanaam jël doole di ko exercer ci ci ci askan mënul durer lu yàgg-yàgg c'est que su defee euh, trois semaines un mois day commencé am benn genre day day day wàcc day wàcc ci dañuy commencé sonn ci fitna bi ak ci pression donc la pression mënoo ko durer loolu yàgg sauf en temps de guerre lii moom ñëpp ñi xam ne ils sont politistes ñu yëngatu ci wàllu euh, yorum réew xam nañ loolu donc il savait que euh, ça ne tiendrait pas lépp ay weeri weer sans nit yi yëngatu nit yi rouspété ñaareel ba euh, il y a benn cérémonie de déconfinement qui se passe ci dëkk yi nga ne dëkk yooyu ñooy kilifawu suñu président Macky Sall ndax moom foofu lay gën a inspiré damay xool sax ni man discours am yu bëri man peut-être ñi may suivre Facebook xam nañ loolu man j'anticipe ay discours am xam naa lay waaj a wax ndax man xam naa fi muy rootee xam naa ñooy ay kilifaam si ñi moins les donneurs de leçons am ñooy kilifa wu président Macky Sall euh, troisième point bi muy point bu am solo il commence à avoir des émeutes dans la sous-région notamment dans le dans les pays qui sont lu mel ni Mali ci la bokk Mali ay émeutes moo mujj am ñuy taal ay commissariats ak ay ministères pour ne ñoom euh, couvre-feu bi dañ ci doyal le président IBK sax d'ailleurs a pris dogal pour arrêter couvre-feu bi donc dafa am xam ne dafa am effet de contagion bi nga xam ne chef xel daf ci war a ragal dëkk Sénégal nag dafa am euh, force de l'ordre xam ne dañoo xarañ les RG yëpp ñu ngi def seen liggéey di xool di saytu euh, la température euh, populaire ni ci fa lañ toll ras bool bol yi fan la toll mer bi fan la toll ak euh, action bu ñuy waajal ndax jege wala jegewul donc man foofu laay situer la décision du président Macky Sall dans un premier temps dans un si benn domaine politique mais dans un deuxième temps daf ko ëpp loxo xamul lu muy def mu bëgg ay responsable mm-hmm. dafa mel nii dafa bëgg sukkandiku ci ne religieux yi ñoo ko laaj dama koy def léegi lu mënti am religieux ñu responsable donc dafa dafa mel ni mu ngi bëgg a teg baaraamam si jumaa yi comme que jumaa yi la gars yi wax man dama vraiment j'ai problème ci dëkk bi dafa mel ni corona jumaa kese ko mën a joxe waaw jumaa rek ko mën a joxe l'église moom ils ont plus responsable depuis le début ñoom ils avaient mm. jumaa yi gisuma pourquoi ñu stigmatisation sur les mosquées euh, sincèrement je ne comprends pas des des des donc man pour ma part il y a pas de pression du chef de l'État le chef de l'État faalewul pression waa Sénégal ak religieux politique ku mu mënti doon euh, si biir réew mi. Mhm. amu fi kilifa. Mhm. ay kilifaam ñu ngi bitim réew. donc euh, mais professeur ñu gis ne euh, président de la République ba mu annoncé ouverture lieu de culte parce que du jumaa yi kese la ñu tëjoon y aussi mhm. jàngu bi moo nekk église bi. tëjoon nekk aussi mais da gis ne ñenn si lieu de culte ay juma ñoom dañoo jël seen dogal preuve la famille omarienne ñoom nee ne du ñu ubbi mm-hmm. euh, ñu gis ne aussi euh, l'église ba mu defee rek tak discours am rek si la waddal moom tamit beneen euh, kii mm-hmm. am mm-hmm. di xam le ne ñoom du ñu ubbi seen yi nga xam ne mooy seen lieu de culte église yi ban jàngat nga nga am si loolu est-ce que nekkul ne aussi fii dafay wane rek nu ñu koy waxee sa limité état par rapport ak tamit foi fii si Sénégal waaw côté boobu daf si am lu lu lu xaw a doy waar li nga xam ne tamit il faut ñu mën ko bàyyi xel au mm-hmm. Sénégal xam nga Sénégal dafa am dafa am structure bu xaw a doy waar bi nga xam ne euh, bu spécial par rapport ak yeneen dëkk yi mm-hmm. euh, chef l'État ba muy jël dogal euh, si juma si si si juma yi foofu tamit laay wax ni mm-hmm. jël ñu woon dogal ci église yi soo xoolee arrêté sax bu gouverneur Dakar def on a écrit noir sur blanc article 2 on a écrit les mosquées on n'a pas parlé de lieu de culte si on avait dit lieu de culte naa comprendre ni église yi en font partie mais on a stigmatisé man arrêté boobu dama ne sax dañ ko doon attaqué parce que elle est discriminatoire. donc dafa mel ni ñoom dañoo ragalee église yi euh, dara. c' est wax moom avant ñu jël arrêté. la ñoom dafay tëj buntam. Mhm. donc église moom dafa conformé wu. ah parce que église tamit dafa am tam réalité église dafa am benn connexion bu mu am ak le Vatican en à Rome. en ah, mooy c'est le xalif général. donc ñoom la ñuy fa la jëlee seen ay décision ñoom seen décision xaaruñu ko ci état Sénégal donc li tamit il faut ñu comprendre ne y' a pas subordination de l' église par rapport à la république sénégalaise lii moom c' est un fait bu ñu war a analyser saa yi ñuy wax ci waxu diine. Mm. ci wàllu jumaa yi tamit il faut ñu gis tamit Sénégal wax dëgg yàlla Macky li mu waxoon ne euh, daf koy gérer man gëm naa ne Sénégal Macky xar na ko ñaar a pare ndax ci wàllu jumaa yi euh, am na fi ay jumaa yoo xam ne mm. euh, ay jumaa ak i à Macky Sall Macky am na fi ay foyers religieux yi nga xam ne c'est des foyers qui soutiennent Macky Sall. Mm-hmm. donc euh, ba Macky jëlee décision euh, ñëpp ils ont fermé parce que décision administrative la le gouverneur su ko jëlee képp ko ubbi dañuy ñëw dal sa kaw donc kenn ubbiwul woon ba Macky ne nag léegi ubbi leen man jàpp naa ne am na ñi nga xam ne seen kersa moo leen jàpp ñemewu ñoo ubbi ndaxte euh, ki nga xam ne yow yaa taxawoon di fatwa di yuuxu fu nekk dañoo war a tëj ndax musiba la nangam ak nangam te fekk amul sax ñaari moor. il y avait pas deux morts il y moins de trente cas n'est-ce pas et moins de deux morts les gens ont fermé les mosquées bu ñu demee ba am des vingtaines de morts ak des milliers de cas suñu ubbee ils seront ils seront incohérents ils seront illogiques donc man je, trouve que je l'inscris dans la cohérence bu ñenn ñi am euh, ñeen ñi tamit du question de cohérence mais question de kilifteef la ils sont affiliés à des marabouts yi nga xam yooyu ils ils ont dit qu'ils accompagnent Macky Sall dans tout ce moo gënoon donc mais euh, y a une demande populaire qui est là ñu bëgg mosquée yi ubbi gëm naa ne am na ñenn ñi nga xam ne pour faire plaisir à Macky Sall ba tey ils ont ils ont dit que ñoom ils vont pas ouvrir. et c'est mm-hmm. là que j'inscris euh, de mouvances tijanes yi nga xam ne qui sont des des groupes. Euh, acquis au président Macky Sall donc lii moom c'est une réalité géopolitique du Sénégal bi xamee qu'on peut pas ignorer fii suñu nee association des imams sax l'association des imams iliful mm-hmm. fii Sénégal dafa am lu spécial lu moom Sénégal moom ay mosquées yi xam ne mosquée tidiane la mm-hmm. am juma bi nga xam ne juma murit la. am juma on va dire bii juma ibadu la les juma saraxule sax wala jumaa bambara wala juma tukuleur sax am na Sénégal donc fii y a des réalités ethniques et confrériques yoo xam ne ñoom ñoo dominer les mosquées donc mosquées tam om peut les enliser di bàyyi xel san sans bàyyi xel kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ilif imam yi nekk si mosquée yooyu. aujourd'hui à Dakar tous les imams affiliés a la famille Fouta a à à famille Tidiane de tous les imams tidjani yi nga xam ne affiliés ils ont refusé d'ouvrir leur mosquée parce que ils se conforment à décision de leur xalif général ñoom bi nga ñoom jàpp nañ ni bu waxee dara ñoom la war a def. Mhm. Euh, l'imam ratib de Dakar est, connu pour être un partisan de Macky Sall. moom c'est un yëpp c'est des faits yi nga politiquement on peut les on mhm. donc euh, gëw sax ni c'est pas une du rupture. mais dama gëm ni rek dafa am ba tey une frange euh, des des des yi xam ne qui veulent faire plaisir au président Macky Sall et qui ont décidé de voilà de ne pas ouvrir leur mosquée.